buy mooy temps wala xamoo luy buy. lan la laaj. moom kii bi waaw. waaw man de yow kooku man dindi yow. acca sama baa

jamais dans l'accent. terrain pas baaxul pourquoi ne pas faire deux touches d'abord pourquoi il y a benn touche touches touche Il y ngi ko a def gars yi sur le camp Omar nga jëlaat bal bi ak sa pied droit nga dooraat ko gars yi bal quand même on sort pas les côtés bal bi dem touche moo gën ak siat il faut que les gens soient calmes calmes calmes calmes ci deux touches c'est il faut agir au lieu de réagir. jàppale